lim daa bokk ci sëriñ bi seexal te lu ma lim lim sax du tax ma jeexal hmm. ma lim bi bokk ci bi seexal te lu ma lim lim sax du tax ma jeexal sëriñ ma ma magam ci saayir te moo ko seexal defal ko xaadir defar na mbàkke sanc saam toñ mesere taaw yaa ngi yor njindinaalu besere Cheikh Ibra Fati doy na ab bamba seexal ay moroomam téeba su bamba muusa mu dim aaroona yoon wa fi seex yaw saleena seexanta bamba kamayoon li baan moo ko joxoon daru salaama gaan buru jullit la ko defoon mi daane ku bëgga songoog moom mu far la daane rakkam seni ñaaf ya boroomi kiimaan bamba ko seexal del def ko ilimaan su bëccëg ee muy noot yoonu jàkka te su guddee muy naafila rakka yaa yee seex corook balla coro bamba taxoon daaw ñu da waxi biro këree nga seexe fi bawal fa jaaxal kiina fi ndar ma soŋ yi dal koy taaxal seex ab sa alif joorel nos woy liisole naag duurel leeram nga ak ikam ya ak taaram ba ci waa mbàkke ful caatal sëriñ Masamba Mbakke caat ma Bamba ko seexal yàlla yokkaan ma leeram nga ak ikam ya ak taaram ba ak ñetti kaali yi niroog Seex Bamba caatal sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbakke moo ko defar soob ko ci barke moo daan dol mulki ak tijaani ak Njurbel ak may ñaan ya sëriñ Muhammadu xare ngi pof di Bamba muy ba ngeen di toñ na soñña gusaas ak pof di jàmbaale woon bu doon ci kuy dimbandi Cheikh Balla Joor meen ci réewi saasal ña sukkal di ko dawal di raamal du denc jubaam xamul nde jooram moo manu gandawal xamul camooyam sëriñ Mamar Kuna mu am ma fulla Bamba ka may gu tukkee ci Yàlla ab seex la woon bu fonk yoon tarbiya ta def baram tawit ta fonk tarqiya Ibra fareet ca na Mbàkke bambaa ngi leen seexale fee bi njéeréem jagle mbër ma boole ci ngor ak diine faraano doole ibra fere ceerno mbakke bëri sëriñ ma mar pendaay xaritu bamba fugraaloon bamba defar xolam ba sëriñ ma mar pendaay xaritu bamba fugraaloon bamba defar xolam ba ab seex la woon bu fonk xeeti njàmbaar ku weddi laaj ña ka dogoon ca gànnaar ibra fare cerno mbakke beeri bamba ngi leen seexale njaraan buur yàlla mbar ma boole ci xaati ngoro diine raw na doole sëriñ amar mbakke ak sëriñ amar faal moo leen defal ñëpp di may faal ahmadu joosi mbakke abdu xaadir sëriñ mamar astu sëriñ bamba gore rakam sëriñ Mbàkke sëriñ Seydo mu ne fu leen a gën a am tawidu sëriñ Mamar Jeboog sëriñ Jee moo leen defar seexal sëriñ Madu Jee sell ak goreeg xam-xam bu rëy mooy seen ndam ca maam sëriñ nga waa Mbàkke defar bu bayaari askeni la joobe defar nga Mbàkke defar bu ba yaari askan mi joobe ndaw si fi taaru mbakke mbaate mbu ndax ma am fa barke alaaji mbakke buso kuyel diine yaa ko defar mu dim këlfeen ab ala añ na makka dem madina bool na tuubaak tay ba diine an kaxtoom ti daaka waxooma te diin doome sangak sang duñ ni luumina yaara kemeñ naa sëriñ Masamba koo ci janool muy samandaay Seex Bamba déglul ma wax la li ma def lim defar Saalum ak Bawal ak njaambur Seex Bamba bam taale nag baleeri jolli mu xam ne kuy walli def daa walli Seex Bamba bam taale baleeri jolli mu xam ne kuy walli def daan walli mu dalli taal Seex Ibra lamp mu daale géeti ndar di buun wa mu daal di naan Seex di buun wa Seex Ibra Faal mosee bu ko tëggaale ngir ay mayam mosee ko tuddaale te xam na kat kenn mosee ko faale Bamba faale réew mi faale rakam Sëriñ Saali Faal moo sell sëriñ ma man ngoone gëmam gaa ma samba faal mu kenn daawul faale bamba faale mu dem di bawal di yaale seexoon faal ma seefu kay faale bamba faale tay ba faale ma silla faal <clears throat> moor ma silla faal moon mu sisu kay faale ma silla faal ma woon fa bay ti moor jooja faal bamba taxan ñu leen seex yoro faal Cheikh Baara Faal Cheikh Maar Faal moo defar defar Serigne Ousmane Faal Cheikh Modou Faal Xay Njaay Serigne Madiale Faal moo tax bawal di siyaare di yaal Njaga Faal xam na Serigne Mamar Faal seen lampi xool Bamba moo ko taal Cheikh ma Cheikh Faal xat awaani Faal doy nga xalifatu te am ngaala Mor Talla Faal Basiru Faal Asan Faal Ali Faal Ahmadu Abdoulaye Faal seen leexi yàlla na leen sëriñ bi doole faale bi soorati tawbatu walin faale Cheikh Ahmadu Asan Cheikh Ahmadu Absa Faal sëriñ Madun Faal madul ko bulu ko joxe gaal sëriñ Barakan Faal sëriñ Maamur Faal waa soow jant xam na seeni laxwaal Cheikh Ahmadu Faal njaga Mamar Marem Faal jumaay Njurbel xam na seeni laxwaal Seex Masayer Faal Ababacar Saar Seex Abdul Xaadir Faal apee fule naal Seex Faal Gànnaar Sëriñ Mas moom Sëriñ Faal Seex Moodu Faal Langaar adiidu moyaal Sëriñ Useynu Faal Sëriñ Isaa Faal Seex Moodu Faal Saajo Sëriñ Asan Faal Seex Ibre Yaasin Faal Sëriñ Maamur Faal Seex Ibra Faal mboobeen ku Bamba kayaal jaara Seex Bamba defar nga paaleen ñëw si woon ñi fi desoon ñee nañu leen jaaraama Seex Bamba defar nga paaleen ñëw si woon ñi fi desoon ñee nañu leen jaara Seex Bamba defar nga paaleen ñëw si woon ñi fa desoon ñee nañu déglul ma wax la seex yu mag yi sant Joob ku wal woor lebal ka mu fay la ceeb sëriñ Suleymaan Joob la Bamba woolu ba wax ne képp ko topp keelu ma samba Joob mu kenn daawul joobe Bamba ko seexal réew dal ko joobe baara kefi Ahmadu Joob ma samba samba seex na ngir gëmoon na Bamba sëriñ Xamar Joob ak sëriñ taawooda bamba taxoon ruuñu ki mooda sëriñ ma yaasin joob sëriñ seer joob sëriñ ma samba xari joob seex maar joob seex madi joob astu sëriñ maxtaar joob seex ibra joob masar wa moodu njaay joob sëriñ ma taar samba ma samba astu sëriñ ma mor penda ma dencoon astu sëriñ ma mor joob seex ma samba njaaga sëriñ Madlu Xewar ak njàmbaar ga sëriñ Xali Joob ma kumba njaabi Seex Abdulaay Joob a peefu leen ay ceebi sëriñ Mataar Anta moo man wa Joob Seex Moodu Muxtaar Joob dadaa xañeb ceeb Seex Njaga Danda Joob sëriñ Atmaan Joob Seex Moodu Ndaak Joob seeni poos dadaa seeb Seex Moodu Njaay Joob seeni poos dadaa seeb Seex Moodu Njaay Joob ak ma mamar joob njooro moor daaxu joob seex laay ñexim nan jooru Cheikh Madi Joob tuqaak Serigne Laamin Joob moor ami joob ma penda joob Ousmane Joob Cheikh Gora Joob Abibu Joob Seex Njaay Seex Ñaan Joob Cheikh Madi Joob Masar Serigne Minan Joob Cheikh Madi Laamin Joob rakaati Cheikh Joob Cheikh Madi Joob waala ku faaxu koy góob jaaraamam jaara ku am jaaraama yaa kawal sa doom rey karaama jaaraamam jaara ku am jaaraama yaa kawal sa doom karaama déglul ma wax la seexi daami saar nga xam ne bamba sooye gondi siyaar seex ibra saar musibu ko siyaare bamba taxoon mu ñëw di sampi daara seera saar musibu ko siyaare bamba taxoonu mën a sambi daara moom la sëriñ tuuba wawoon fa tuuba banaa ko yaadi silwati ak booba nganaaka yaaqilu ibrahima mawlaaka xayran wa minan amina jazaaka yaaqilu ibrahima mawlaaka xayran wa minan amima ba mu demee taa yaa nga ya jabar ganaam tey defar njaboot ga ahmadu saar falilu saar sëriñ saar ak mbakke saar yàlla ñu am seen yaakaar seex magga saar ma faatu woon fa gànnaar seex bamba nee tabbi mukk fi naar seex gumba saar moor soxna saar usmaan saar am nañu xam-xam bu xaju cay saar seex madu mbakke saar ababakar saar sëriñ sëriñ may na leen lu fawqa lasraar sëriñ basiiru saar wa mbay saar sëriñ basiiru sëriñ basiiru saar sëriñ mbay saar ngeen moo anta saar ali saar kuleen ngeen sëriñ masamba saar sëriñ maxtaar saar seex njaga saar a peefuleen lan waar seex bamba seex mundu seex madu saar madun seex madu saar ahmadu abdulaay saar si amadu jooje saar ku bamba doo xaar moo moodu mbaang saar baara saar mamar saar bamba taxoon ñi mel ne seexi gannaar sëriñ bi jeexal na sëriñ mu jiyu saar sëriñ ma jibu saar sëriñ omar saar seex siini saar seex mall saar nerin kaar sëriñ mu kodde baar sëriñ usmaan baar sëriñ ma samba ndaar baar sëriñ bi seexal na muriti caareen gi ceex mi roowul ku jaay ëreen jaaraamam jaara ko am jaaraamam yaa kawal sodom rey karaamam jaaraamam jaara ko am jaaraamam yaa kawal sodom rey karaamam xanaa ye seex bamba seexal ci waangeen ko ca waangeen ku leen du tax nga jeexal xanaa yi góoli seex bamba seexal ci waa ngeen ku leen di tax na seex aadama géy fa mbaabu seex madu géy mbaabu sëriñ ma baabu ba ñu demee taw yaa ngi yor bootam yaa defar ganaam te defar njaboot gaa seex madu géy jamaak sëriñ asan géy seex madu géy jamaak sëriñ asan géy seex mustapha géy ak magam sëriñ géy seex baabakar Seex Amadu Gey ña daara Bamba taxoon ñu daara Seex Amadu Gey la baag Usmaan Gey ma Kumba Gey ma Ruba Gey ne leen cey baay daam a na maam daam Seex Amadu Gey Njaay Abdu Gey ma dem saam Seex Moodu Xuja Gey Abaabakar Gey Seex Moodu Saalum Gey Sëriñ Isaa Gey Murdaaxu Gey Seex Makumba Géey Maalik Géey Seex Masayer Géey ak Sëriñ Omar Géey Sëriñ Mademba Géey Sëriñ Musaa Géey Yangooba Géey Ali Géey